xamante ni def na ko ci li nga xam ne moom la ñu ko tuumal ci réewum Sénégal moom Cheikh Dieng nee lu muy layaam layaamal wala nag koy ñaan état bu Sénégal li muy sàkku daal daal di koy ubbiwaat Cheikh wax ci yi nga xam ne jamono ji gars yi ñoo ngi woon nañu sax def li xam ne moo leen waxoon ñu teg ko ci suufa ngir woppi coronavirus je am na loo xamante ni trop c'est trop mënuñu nag di wéy nag di dund nag état boo xam ne daal ay wéyu lañ moom Cheikh Dieng daan wax ne Karim Wade muy CEDEAO di ONU ak international ñëpp jàpp nañu ne Karim Wade dañu ko tooña yéen a gi ba tey ci réew mi quotidien Cheikh Dieng ne na caaxaan yi nga xam ne état bu Sénégal moom lay def loolee nag la ñu bëgg ñu daal di koy teg ci suufaay yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Déthié Fall mi nekkoon numéro deux parti réew mi bi Idrissa Seck génn na fa ba daal di ber langug boppam ni ki démb kere na parti moom Déthié Fall na ma ko tuddee mooy parti républicain pour le progrès diisoo ak askan wi moom Déthié Fall daal nay sotti nag suuf ci li nga xam ne maanaam mooy mburu meek soow mi mburu meeg soow mi yéen kaay gi ne na Déthié Fall dafa lànk kandaare bañ a naan ci li nga xam ne mooy soow mi yéen kaay gi di Vox Populi Déthié Fall nee na nag li xam ne daal mooy dignité ak ngorom du ko jaay benn yoona yéen kaay gi du L'Observateur nee na ki nga xam ne mooy Clédor Sène ak Dame Mbodj ak Assane Diouf demoon nañ Touba gisante ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou waaye nag yekk nañ fa musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy Macky Sall maanaam na nag léegi daal ku leen ko sabañ rek ñu daal la koy delloo moom Lat Diop nee na opposition bi dañoo tàmm ay saaga waaye nag léegi ku ñu saaga ñu fayu ku taalite daal suñuy kër danañu fayu léegi nag amul lenn loo xam ne ñun daal waa APR dañu ko masla ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gu jege yéen a kaay gi de la sa ak La Tribune nee na mi nga xam ne moo nekk maire bu Mbao bàyyi na Macky Sall jamono ji nag dem na sa opposition a kaay gi di Vox Populi nee na neexul ba neexul waaye Macky yi nga xamante ni ma jambal jaan yëkkati woon na ko wax ci ñi nga xam ne ñooy Casamance ak Joolaa yi ak MFDC yéen a kaay gi ne kuréel gi nga xam ne moo ëmb nag taskatu xabaar yi di jubbanti lépp loo xam ne def nañu ko ay rëq-rëq di correct ñoom nag jubbanti nañ ki nga xam ne mooy ma jambal jaañ waaye nag moom journaliste bi daal nee na amul lan lenn loo xamante ni maanaam dina ko baaloo àq daal wane nag amul lenn loo xam ne réccu na ko ci kàddu yi nga xam ne bindoon na ko moom ma jambal jaañ nee na bàyyiwu ci dara la mu waxoon daal tey la ko gën a wax yéen a kaay ñu xëy fekk fa Abdoulaye Mbaw di ab nee na ma jambal jaañ est un homme dangereux yéen a kaay gi di Walf Fadjri ma jambal jaañ daan nay taqal nag ki nga xam ne mooy Souleymane Téliko mi jiite union des magistrats yu ci lu jëm ci mbiri Hissène-Habré ndax Madiambal Diagne nee na nag ki nga xam ne mooy Souleymane Téliko dañu koo joxoon ay frais de mission ngir nag mu dem sa Tchad te ba mu demee Tchad waa Tchad gouvernement ba ñoo ko jël en charge loole nag ab rapport boo xam ne union européenne ñoo ko def daal di nag taqal ki nga xam ne mooy Souleymane Téliko moom Téliko ci yéen a kaay gi nee na dina porter plainte ki nga xam ne maanaam mooy Madiambal Diagne ndax daf koo sosal waxal ko lu dul dëgg yéen kaay gi di Vox Populi Khalifa Sall mii di Sénégal réew la moo xam ne ñu bari ci askan wi ñoo ngi dund ay jafe-jafe yoo xamante ni jafe-jafe yu métte métte jamono jooju nag gouvernement bu Sénégal ñoo ngi fi nekk di caaxaana moom Khalifa Sall nee nag am réew dafa am noo xam ne moom la ñu ko yoree waaye nag ñii nga xam ne ñoo yore réew mi culture état sax yore ñu ko yéen a kaay gii de la sa Ousmane ne dàq nañu ko moom Ousmane Sonko jamono ji nag ma ngi ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall nee na ko attention yéen a kaay gii di réew mi ko di nga xamante ni nag ñoo loru ci train ne ñoo ñoom nag jamono ji daal nee nañu nag euh, danañu wàcc ci mbedd mi bu dee nag joxuñu leen la nga xam ne moom la ñuy waxante woon ak état bu Sénégal yéen a kaay nee nag lu jëm ci wàllum njuuj njaaj tappale yi nga xam ne moo am ni ñu koy jaayee bitim ñi nga xam ne ñooy waa douane ñoom nag daanañuy fësal tappale yi nga xam ne moom la société Sabodala Gold nekkee woon moo tax société boobee nag joxe na lu toll ci cinq cent millions ngir ñu bàyyi ko mu feex yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na syndicat autonome des techniciens de la santé ñoom nag daal bokk na ci ab décret de reclassement moom la ñuy sàkko ba tey ci journal bi daan nay wax ne remaniement dina am dina bëri ay ministre ak ay DG yoo xam ne danañu leen tëbal yéen a kaay gi de Dakar Times na njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi def ay dëbbal dëbbal ngir nag def Idrissa Seck premier ministre yéen a kaay gi du l'Observateur Eli mi nga xamante ni ab comédien la woon bu ñu ràññee ci Sénégal jamono ji dafa feebar lool lool fanweer ak juróom-ñaar ci nañ leen fi nga xam ne mooy sa armeelu Yoff ñoom ñëpp nag ci benn pax la ñu leen dugal ndax ñooñee xamuñu seeni mbokk yéenekaay gi di Stades xëy na wax ci match bi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Eswatini yéenekaay gi nee na gaynde yi ñoo nga Cees maanaam di tàggatu yéenekaay gi di sunu làmb nee na face à face bi nga xam ne Eumeu Sène def na ko ak Lac de Guiers numéro 2 face ba sedd na lool lool lool Eumeu Sène nee na jamono ji xam na fan lay jaar ngir nag daan ki nga xam ne mooy Lac de Guiers numéro 2 Lac wax Eumeu Sène na ko jamono ji